Pape Amadou Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa lay ziar di la fay soxna si. may fàttali suñu auditeurs yi ne journaliste la di analyste politique euh, ñu doore kook la xew ca tournée économique bu njiitu réew mi euh, gis nañu euh, jaar jaaram yi ci yenn diwaan yi yu ci mel ni Saint-Louis ak Podor la ka fa teewel ci ci ay nit bëri na te ji noo jàngatee loolu nga xam ne gis nañ ko ci ay nit ñëwoon. teewu euh, teeru euh, kii di njiitu réew mi. xam nga dafay baax yenn saa yi. Mhm. ki nga xam ne moom moo jiite. comme day joxeñ di santaane mu jóg. Mhm. dem seeti la mu santaane woon fan la mbir ya toll. Mhm. nan la ko askan wi nangoo. lan la ca war a yokk. bu fekkee dañ caa war a yokk te nag réew moo xam ne dañ koy defar mu mel ni Sénégal. Mhm. Euh, boo defee boo defee juróom-ñaar ñu ne la des na fukk yoo xam ne moom lañ ko war a matale. Mhm. kon euh, loolu ci wàllu nga xam ne moom mooy jógu njiitu réew mi euh, ci wàccaay ba nga xam ne moom lañ koy wàccale askan wi mën na cee gis boppam ne kiikat kat bu ñëwee nañ ko sargal. ndax siggil nañu. Mhm. jaaroon na fi digge na la mu diggee woon am na loo xam ne gis nañ ko ci ndeete am na loo xam ne dañ daf ci des mu doon nag taxawaay boo xam ne kon buñ ca manifester dinañ ko wax ne gàcce ngalaama ci sa taxawaay. Mhm. waaye ñu ngi séentu lu gën a yokku parce que am réew moom lool la yokku rek waaw nit ñi fu ñu toll seeni soxla day taxaw seeni soxla dañoo bëgg ñu ñu fajal leen ko euh, kon. riir moom nga xam ne moom la riir mi jëm mhm. ci li nga xam ne moom mooy dalal ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi mhm. euh, moom ci wàllu boppam bu mu jàpp ne ah sama lépp mat na te jàpp ne ñii de nañu kon nag damay gën a laxasaayu gën a farlu ci gën a jaamu li nga xam ne moom mooy seen soxla euh, ci li nga xam ne moom lañ ko bëggee ci euh, tournée googule seetlu nañu ne ay leader politique ku ci nekk yaa ngi wone sa xarañte donte diwaan yooyu la yépp ñoom xaw nañ fa euh, bari lool euh, tey jii noo jàngatee tamit lool ndax loolu dina am lu mu maanaam dina feeñ ci local yi nga xam ne ca lañ jëm. dañoo def tournée bi maanaam doxantu président la république ci jamono yoo xam ne. ñu ngi séntu xëccoo yoo xam ne yu tar lay doon. Mm-hmm. ndax nag maire moom ku nekk bëgg nga ko doon ci li nga xam ne moom mooy sab gox. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne am na ñu gëdd boo xam ne ràññee nañ ko ba pare am na ci ñoo xam ne euh, bëgg dañoo bëgg a wane seen bopp ne ñi fi nekk lu ñu def ñoom mën nañ ko wala mën dàq nañ leen ko. Mm-hmm. kon Euh, bu ame li nga xam ne moom mooy xëccoo yoo nga xam ne yu tar la warta mën a bett kenn ci wàll wi nga xam ne moom mooy taxawaay. Mm-hmm. dañuy wax nag ne ci démocratie euh, sëmbaxloo kenn mënu ko aaye. Mm-hmm. kurfañ ya wala ay ñaaw ñaawteef mooy li nga xam ni moom lañ cay bañ. Mm-hmm. ndax ku nekk war ngaa mën a yuuxu wane sa bopp waaye yamal ci yuuxu te wane sa bopp rek waaye bu fekkee la sa waay di def da nga ko bëgg a aaye ba di dal ci kawam wala di yónnee ay nit ñuy dal ci kawam kon ni ñu koy gisee yenn saa yi. Hmm. loolu mooy li nga xam ne kenn waru ko mën a nangu ci li nga xam ne moom mooy euh, ab ab xëccoo. mi ngi dox nag. Hmm. waaw mu ngi dox nag mi ngi dox nag euh, moom président la république di seetlu di bàyyi xel. Hmm. Euh, ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaayu ñii ak ñële loolu lépp dañ naan ah Euh, nañu bàyyi xel ba xam rek euh, wàllante fu muy mujj euh, gëtëm. ñu gis tamit ne euh, ci tournée gi dégg nañ ci euh, ñu waxaat li jëm ci euh, ñetteelu mandat njiitu réew mi tey ki ko wax mu doon responsable doon tamit ministre de la République lan nga jàpp ne moo waral a chaque fois ñuy andiwaat boobu boobule surtout ñi bokk Benno Bokk Yaakaar alors que constitution bi nee na ñaari mandat yi nga xam ne yu toftal la nit ki di def mën cee pare gis nga coowi eh, ñetteeli mandat. Mm-hmm. Euh, ba ba 2004. ba conseil constitutionnel indi li nga xam ne moom mooy dogalam. Mm-hmm. coow li moom day dina bari loolu ci réew mi ndeete nag ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ci boppam. Mm-hmm. yëkkati woon na kàddoom ne euh, du ma ne waaw du ma ne déet. te kàddoom ba jiitu woon li jëm ci ñaareelu ñetteelu mandat constitution bi tënk na ko ba pare kon nañu jàngat li nga xam ne moom moo nekk ci constitution bi mhm. ndeete am na ñoo xam ne dañuy yëkkati seen kàddu di wax ne ay càlla la ci li nga xam ne moom mooy mbindum euh, mbindum constitution bi bunt la yoo xam ne buñ ko xóotalee day wane ni Macky Sall mun naa def troisième mandat ñeneen ñi ne déet loolu moom mënut a jóg te jarul a sori. Mhm. kon coow laa ngi ci réew mi. ñiy wax nag fi mu toll nii ne Macky Sall troisième mandat seen xel la àndal. mais est-ce que tamit nekkuñu di di natt xool euh, ndax buñ ko waxee sénégalais yi maanaam dina jàll seen xel. jaadu na jaadu na jaadu na ci fànn boobu parce que ku ci nekk di nga mën a indi li nga xam ne moom mooy sa sa feem. ci li nga xam ne moom mooy sa bëgg-bëgg am na ñoo xam ne Macky Sall def troisième mandat moom la ñu bëgg moom lañ ko yéene mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne déet loolu moom nañ ko teg fee ndax nag euh, euh, sunu constitution li nga xam ne moom la moom la tëral daal te takk ko mm-hmm. nan ko yemale ci loolu ku def ñaari mandat xajal sa morom moo tax ma ne coow li euh, ba ca kanam mm-hmm. ba ba ñuy dem ba ñuy dem ba deux mille vingt quatre coow li moom fi lay nekk rek. waaw kon bu yeboo ñu def ci ndànk. Mhm. nañ ci def ndànk te tey lu ci. te yaakaar naa ne la le conseil constitutionnel di indi bis bu ñu ko euh, joxee loo nga xam ne dafa jëm ci troisième mandat loolu moom mooy la nga xam ne gis nañ ko 2012 dund nañ ko ak ak ak Ablaye Wade. <laughs> Ablaye Wade ngemboon nañ ko mais ba mu demee dañ ko dañ ko daaneel waxuma ne Macky Sall dañ koy daaneel waaye dama nañu bàyyi ba xam conseil constitutionnel lan la ñuy indi ca jamono yooya. Mhm. coow li nag mën naa bari fi ne nii. ci coow loolu sax euh, askan wi am nañu seen mot à dire ci débat politique bi ba tax na euh, dégg nañ ci Moustapha Diakhaté mu ne dafay euh, amal pétition laajte askan wi lu ñu xalaat justement ci ñetteelu mandat njiitu réew mi ndax jàpp nga ne pétition boobule am na solo. am na solo kay ndax ki ko yëkkati. kilifa la ci réew mi. Mm-hmm. muy Moustapha Diakhaté waaye ñeneen ñu ngi ci seen kàddu ñoom it jëme ko ci ne Macky Sall war def troisième mandat loolu damay wax ne coow la loo xam ne day ne ci réew mi te du teel a jeex. Mm-hmm. ku ci nekk wala kuréel yi dinañ bari ci li xam ne moom mooy seen gis-gis ci fànn boobu waaw kuréel yi dinañ. bari ci seen gis-gis ci li nga xam ne moom mooy fànn boobu. Mm. kon dal ci ak tey ci ku mu neex na nga yëkkati ci wax ci lu la neex ndax ci réew réew moo nga xam ne kàddu dañ ko war a bàyyi mu jóg ca na mu gën a rafetee moom la wax waaye waxuñu kàddu goo nga xam ne day ŋàññ ak xarab. waaw kon ku ci yëkkati mu jëm ci li nga xam ne moom mooy nii laa ko gisee nii laa ko yaakaaree nañ ko bàyyi mu wax. Mm-hmm. askan wi moom mooy dogal. dëgg la kujje politique bi Papa Amadou Fall ne mekku nañ ne ay fanangi nii uh, seen yi yëngu-yëngu dafa gën a uh, feeñ wala sax dañ koo baral ndax uh, am na ay organisation euh, société civile yi nga xam ne amaloon nañ fi euh, benn rassemblement euh, ca place de la nation waaye lañ fa gis ci homme politique daanaka moo gën a bëri tey ji nan nga jàngatee justement seen yi yëngu-yëngu jamono ji nga xam ne ñoo ngi waajal lii di local yi dafa am cër boo xam ne buñ la ko joxee cim réew hmm. soo koy doxal boo ko jubalee dañ koy rafetal rek te li nga xam ne moom la ñu gis fi mu toll nii hmm. ci kujje politique bi ñuy daje di waxtaan di woo askan wi di laaj askan wi li nga xam ne moom mooy seen bëgg-bëgg fas yéene taxaw loolu dañ naan day taaral li nga xam ne moom mooy démocratie Mm-hmm. waruñoo ay li nga xam ne dafa jëm ci wàllu bi nga xam ne moom mooy ndaje. Mm-hmm. ci wàllu politique ci réew mi. bu fekkee natt nañ ko nañ ko war a nattee te loolu cëru ñi nga xam ni ñoom ñooy préfet yi ak gouverneur yi. Mm-hmm. waa police waa gendarmerie yi. bu ñu nattee ba gis ne fii kat yàqu-yàqu du ci am. du indi benn fitna nañu bàyyi ñu doxal ko nañ ko war a doxal. loolu nag ñoom rek ñoo mën a xam. li nga xam ne moom mooy seen natukaay moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser dañ leen di ñaan bu ñu ci indi lenn lu rax lu jëm ci loo xam ni day indi li nga xam ne moom mooy fitna ci réew mi buñ ko tëralee foofu warul mun a am lenn ci lu jëm ci wàll bi nga xam ne moom mooy ay fitna ki jafe kon euh, li am bërkaat démb muy àjjuma ji passé ci fi nga xam ne moom mooy euh, obélisque mm-hmm. euh, ku rafetlu ko kese lañu ñu mën a def ne nag na ñuy bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ku jigi mhm. ñuy doxal li nga xam ne moom lañ ko bëggee te na mu gën a rafete ndax am nga yaakaar wala sax jàpp nga ne coalition gu mag gu l'opposition gi ñu wax dina andi euh, wala dina am résultat euh, ci local yi ñu jëm war nañ ci mun a am yaakaar bu fekkee ay déggoo dafa am yaakaar bu ne jëmul ci ne ñoom dañuy gañe wala kële dafay gagné yaakaar bi dafay jëm ci ne ay kuréel lëkkaloo nañu. yëkkati li nga xam ne moom mooy seen bis gis jëmee ko ci lenn loo xam ne dañ ko bokk. loolu la ñuy wax démarche programmatique. su fekkee ci loolu la ñuy fas yéene doxalee. xëy na mën nañoo am kuréel gu yaatu lool wala bokk dina am euh, ay fantasiru ci seen biir. Mhm. ndax ñii duñu gisee ñeneen ñi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a doxalee. kon ñi mën a ànd ñoom ñooy ànd mhm. ñi nga xam ne mënuñoo ànd seen ñoomit nan la ñuy def waaye nañu xam ne réew mi dañoo toll ci long xam ne fi ne nii euh, nañ ci bàyyi xel mhm. mooy mënatula am kenn kuy demal boppam ay kuréel ci wàllu politique ñoom ñoo ëpp wërsëgu am wërsëgu euh, daan bu ñu àndee kenn ko xam ni euh, rek dafay demal boppam loolu moom doonatul loo xam ne lu wóor la. Mhm. jeexaleeg pencum lebu euh, tey jii nee nañu du ñu nangooti ñu jox leen keneen ku bokkul ci lebu mu doon déclaration gi ñu dégg ci week bi ñi ñu ñi ñu plébiscité bokk na ci Diouf Sarr ak kii di Alioune Ndoye justement nan nga jàngee déclaration boobu boobule. Euh, sunu suufu maam la mm-hmm. ñoo fi ëppale ñoo fi gën a yaatu li nga xam ne moom mooy ci taxawaay mm-hmm. kon war nañoo mën a def benn dank am fu lay fayda nag jël li nga xam ne moom mooy raaye bi nga xam ne dañ koy samp mooy meeru ndakaaru bi wala yenn maire yi mm-hmm. loolu ci la lébu yi taxaw am nañ ci sañ-sañ ndax boddi mm-hmm. ñoom dañuy ñun nañu doon benn yaakaar naa ne terewuñ nag keneen nga ñëw fekk si leen ci li nga xam ne moom lañuy ñuy doon mm-hmm. waaye la bëgg moom mooy bu ñuy fal mu doon ko nga xam ne ci ñoom lay soqi ko maanaam seen doom lay doon mm-hmm. loolu ambition la moo xam ne bu am solo la ndax démb ak bërki démb ay mairie la bu ñu daan jiite Ndakaaru waaw dem ba bërki dem ba ay maire yu lébu ñoo daan jiite ndakaaru goxu lébu yu ci bari doomu lébu nga daan fekk ñu samp ko fa tey loolu suñ ko fes fesalee dañ leen di wax góore waaye gàcce ngalaama doxalin bi nag ci fànn boobu dafa mel ni dañoo ànd ak nga xam ne tey ñoom ñoo yore nguur gi it mm-hmm. ci wàllu bi nga xam ne moom mooy déggin man bi ma ci am ak doxalin bi nga xam ne moom laa ci gis ci wàllu nga xam ne moom mooy seen taxawaay. Mm-hmm. suñ ko matalee ba mën ko am mais kazalika parce que bu ñu yokkoo képp ko nga xam ne bokk nga ci li nga xam ne moom mooy goxum Ndakaaru da ngay yokk ak ñoom ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay bi mais débat la boo xam ne dina am solo lool lool lool lool te nañ lañ koy xóotalee ak nañ koy nan lañ koy bëggee ah en tout cas euh, seen dëggoo moom yaakaar naa ni lu leen di war a mën a jik lay doon. lu leen di mën a taaral lay doon luy yokk nag lay doon ci wàll mi nga xam ne moom mooy taxawaay. merci beaucoup Pape Amadou Fall ñu lay jaajëfal bu baax a baax. mais Elisabeth maa ngi lay gërëm di la sant ma